bismillahi arrahmani irrahim bismillahi lima nafaal walhamdulillahi lima faala lana arrahmani binnicmati arrahimi bilcasmati arrahmani biltajalli arrahimi biltadalli arrahmani bikashfi alanwaari arrahimi bixifdi wadaa'ici alasraar arrahmani bidaatihi arrahimi binucuutihi wa sifaatihi alhamdulillahi alkaamili fi kulli hidaatihi alkaa'ini fi ghamaa'i ghayaabaatihi alkaamili fi asmaa'ihi wa sifaatihi حدائق قامت بشكره عيناها وسجدت لفضله أغصانها وترنمت طربا وتمايل عجبا لنفحاته يعرفه وبركاته وعرفه إنه لشرف لنا في هذه الأمسية المباركة وفي هذه الصائحة الاستثنائية أن نزي أحر تحيتي إلى حضرتكم الميمون وأن نجلس أمامكم بهذه البقعة المباركة لهذه المناسبة الدينية مناس يعني مناسبة دينية ثقافية فنحمد الله الذي أزال دخان الشكر عن قلوب المؤمنين وطهرهم من شهوات النفس واليحموم wa nusalli ala rasulihi naahi an taati lmadarrati naahi an tanawuli rawaihi lmakruhati sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw buy sant yàlla julli Seydina Muhammad ñu ngi leen di jërgal jëf di nuyu sunu bopp ndax alquran daf ñu wax ni idaa daxaltum buyuutan fasallimu ala anfusikum ndax su leen di fekk ngeen may ma ma nuyu ñett nuyu imaam mu yóbbaale képp ku bokk ci dëkk yi nuyu Chérif Ibrahima mu yóbbaale képp kuy kilifa di sëb Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nuyu Sidi Ahmed si mu yóbbaale sëñ Abdou Aziz ak képp ku bokk alxadratul malikiya nuyu sëñ Pape Khalifa tabaarakallah mu yóbbaale képp ku bokk ci daayira mbaa mbooloo mu doon ngir yàlla ak bis bi jotalee nuyu suñu waaju suñu Abdou Karim ñu ngi fi teew ànd ak suñu jaam soo xam suñu sàng soo maam Faama Fall ñu teewal njaboot si di Haaj Maalik bi te Louga ànd ak ñoom suñu àdduna tabaarakallah ñëpp ñu maf ñàndu maf ñàndu mooy lan waxtu daf ñu dënk ci trente minutes la ñu am war a waxtaan ci cigarette cigarette wolof dafa wax ni siin gi sikk la keex gi kéefër la raa gi reewande la taa gi tësay bopp la dañuy wax ni kenn marewul woon cigarette almati ñett nag wala almati juróom soo ko gàccee ci paquetu cigarette te fa yoo weer lu ñu ñëw ñu ni siiw gi sikk la kaaf gi kéefër la raagee ne yow dana tàggate say bopp la ñu tuddee ko adduxaan ñenn ñi ñenn ñu tuddee ko tabax ñenn ñu tuddee ko tabaa boroom saaxibul ishaarati ahad ba taalib ci téere ni yu sammuunahu duxaana wal baadu tabaxatan wa baadum yunaaduunahu li jahlin bi taaba wa baadu ulil arfaani min bugdi min bugdihi laha yulaqibuha bi xaaba fa lan li xaybati nee na ñi amee arfaan xay perte lañ ko tuddee ngir lan yëg ni tafaul la képp kuy tuxteekat ci perte maa lay def borom imaam Nuzayfi ci tariqa bi wax ni wala tusammiha axi bi taaba nee na bu ko tuddee taaba tabaa bu ko tuddee ndax taaba turu sayidna turu madina la fa yonti bi dëkk bal sammiha min xaybatin bi xaaba li anna saaba madinatu rasuli fa xarrafu ismaha bi daaka bil manquli tox nag tur yi ñu koy tuddee ñett la sëñ Mansoor bu lay may weer dana la bu nangu tarixa bi nanguwul tox nanguwul muqi nanguwul mëq nanguwul fëyam nanguwul kiituwaale xeet yooyu lañ koy def maanaam xeet yi ma wax tox moom mooy bi ngay jël dañuy wax ni tux ci koy def sax buy taal sigaret bi toskare àll ji toskare lay tàkk daan tos ni ko wedd naa yàlla furu ñu ni ko wedd mu génn yàbbi seex te bu jëkkaat mukki nag mooy def boo ko xëccee ñii ñaan ne ko moom la ñu xëcc ñaar yoon lay xonq rek nga delloo ko borom mëq nag pon bi ngay jël di ko lokk def ko sa biir gémmiñ fëyam da koy fóon bu la xet duggee gasu kiituwaale nag ma nga koy yor da koy teg ci wetam rek yenn saa yi mu sëgg def ci li soo gisee mu yàq jikko te ñu jëm ca ndax araam naam dagan na amul ku ko bëgg te bëggoo ko sa kër benn mag doom ji day tux ñu wax ko ko mu xam ne su dikkee ni ko dégg naa da ngay tux da koy wet mu jógee marché rek si mu yi teg jël jaas ji teg ci kaw ni koy dégg naa da ngay naan sàngara léegi mu ne ko papa naan xanaa tux la la waxee nag mu ne ko waaw koy tux moom laa bëgg li jënd waaw tux moom nga wax tux moom laa bëgg li jënd parce que bu ko newoon dawee tux mu ne ko déedéet dañuy wax rek waaye daf ne ko dégg naa léegi da ngay naan saag mu ne papa naa sax xanaa tux lañ la waxee mu ne ko waaw tux moomu nag laa bëgg a xool ndax c'est vrai wala déet boo demee ci téere tanbihul ixwaane ala nusuusil ayaan fii tahrimi duxaan aboubacar atiq moo ko def ci tarixa bi la bokk mu ne na ngeen xam ne cigarette ñu ngi ko génne ci dixième siècle ginnaaw su sayidna ginnaaw sayidna gàddaayu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki nga xam moo ko njëkk a indi ci rome yi ab anglais la ki ko njëkk a indi ci maghrib ab yahud la mais ki ko njëkk dugal égypte mi ngi tudd ahmad ibnu abdullahi alxaariji reykatu nit la woon tuurkatu deret la woon yenn saa ñu laaj la ni pourtant dañoo gis ressortissant égypte yu bëri dañu tux cigarette kon dagan na sa si su ko defee am na ko ma laaj de mu ni ma ressortissant Égypte keer yu bari dañuy tox parce que kon cigara dagan na ma ne ko ña fa génnee te perte seen jikko ñoom ñoo koy jëfandikoo parce que cigarette fokk ñu layee ndax dafa xaraam wala xaraamul te boo ne araam na da nga ko indi foo ko layalee lekk alxuraan gisuñu fu mu tuddee cigarette xadis gisuñu fu mu tuddee cigarette moo tax sëñ Mansour bu sëñ Cheikh dama mës a dégg ci moom benn anecdote mu ni dafa dem Égypte benn xaritam bu mu nekkandoo woon fii ci daara ji ñu jàngandoo woon nee na mu dem ba yëg ni ma nga teer mais dafay tox léegi mu dem gane ji ko nee na ñuy reer mu génne cigarette taal ko ci wetam di tox nee na ma ne pat ñuy lekk suñu lekk rek nee na bëgg na ma wax ci cigarette bi ndax daga ba ma discuté ak moom mu indi ma ndax daga na wala xaram nee na ma kóone sama lekk nee ñu dem ba mu yàgg rek waa tàkk mu ne waaye sama cigarette bi yow doo ci wax dara mu ne ko sa cigarette bi lu ma ciy wax yow sa maam danaan naan sàngara daawul julli alaaji Maalik fexe ba say maamaat mu defar leen indi leen teewaan. am ci yow yaakaar tax Tiwaawan defar la nga dem ba delluwaat teer delluwaat ca sala maam cosaanoo da dellu cosaan ku dellu cosaan nag man ñëw ma mu ne ko ginnaan li nga ma wax tey saaga a loolu li nga ma ñi nga xam ne jógoon nañ pour daganal ko ci ay borom xam-xam Seydi Ali al Ajhuri yi ci la bokkoon allaama Seydi Ahmad Baba as sudaan yi ñu nga xam ne nee na sigar dagan na ci la bokkoon Seydi Abdul Ghani an-Naabulusi nee na woon ci ñi wax ni ci sigar dagan na ci la bokk boo demee ca Mayaara al-Haasid ibnu Asir ci bi muy ci euh, ca yax ba dafa wax ni lañuy ñuy jëlee ca seen wax ñoom dañuy wax ni te jëlee ko ci xadisu Tirmisi ibnu Maaja soloo ko mooy sallallahu alayhi wa sallam dégg nga lu lu dagan mooy lan bil xalaal maa ahalallaahu fi kitaabihi al lu dagan mooy lu yàlla daganal ci téere bi tudd ko mu leer te wal xaraamu lu araam itam mooy ma xaramallahu fii kitaabihi li yàlla araama tudd ko ci téere mu leer léegi nag ba maa sakata anhu lu yàlla nopp yont bi nopp ci waxuñu ci nee na loolu te kat wuñ ko min xayri nisiyaan nee na loolu rahmatul lakum léegi nag ndax amul nas amul yax bu ci wax ñooña ca mayaara foofu lañ dellu ni kon ñoom dañu koy daganal ba am ñu ci bind waaye nit ushribat natt na naanal tuxal xalaalan tayiba wa daay saf saafa mim man azalak toxal te waxu ñuy détail naan la dafa araam bu leen déglu innahu wallahi nabtun tahirun lakin al agrada tarmi bil halati moom gàncax bu teey la bu naat la mais bëgg-bëgg yi nga xam ne nit ñi moom la yor moo la yóbbu ci lu alkande am ku way ca loola ni wali naasi fii maa yaasiquuna matahibu nit ñi liñ bëgg am nañ ci seen féete waaye wa xikmatu rabbi fi ixtilaafil machaari bi nit ñi fi ñu wuutee mooy seet lu leen neex ñu su ko defee pour ñu indi anam ji mu araamee ndax wax naa leen ñi nga xam ne te am ñu ci génnaat daañu ko wax ci biir tam bi imam Qasalaani yi dafa wax ci almawahibu laduniya nee nañ borom xam-xam yi d' accord nañu ni cent vingt lor yoo xam ne ci sharia la dellu yi ci diina yi ci yaram mi ngi ci tabac mi ngi ci biir cigarette moo tax ñenn ñi ci seen xam-xam egg wax nañ ni cigarette moo gën a bon sàngara yegg nañ ci wax ni tuxkatu cigarette bu ko deewaalee safara la danga naan ma ak lu tax parce que nit ki boo ko waxee dara danga koy wax loola nga ko wax fu nga ko teg ñu ne sàngara ki ko naan ci boppam la yem alxuraan nee na nañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar pour corriger ko mais cigarette daañu ñëw ci biir ci en français ñu wax ni am na ñoo xam ne toxuñu cigarette mais ñiy tox ñoo yàbbi saxaar si di leen ko xër ñoom ñañ koy xër ñu di ko noyyi mu leen di rey maanaam ñoom ñu mais tuxkat a leen jege ëf saxaar si ñoom ñu nooy saxaar si dee ah mooy tabagisme passif léegi nag ku rey benn nit safara nga jëm kooku moom ñëpp d'accord nañ wa maa kaana li mu'min yàlla wax na ci alxuraan ni ay yaqtula mu'minan illaa eh, eh, xataan wa man xatala mu'minan nag xataan fa tahriru raqabati ñaar la ñuy rey nit reyu tey ak reyu ñàkk tey yàlla ni soo reyee nit jullit te tey ko dafa am noo koy réparé kon yow miy tux ñu wax la ni soo doxee dafa am ñu muy rey te tayoo ko la wax mooy man maanaam tayoo rey gi léegi am na ñooy rey yow te ku rey benn nit safara nga jëm yow rey nga ay fukki nit maanaam yow sa mbir bu la yàlla jégul kenn mun a tee nga dem safara beneen bi mooy reyu tey jàng nga ko liir nga ko nga tey tux bee xamoo ko woon tux nga rey nga bii nag xam nga ko tux nga reyati nga wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaahu jahannama yàlla nee na safara nga jëm xaalidan da nga fay sax fiiha tey du tey yem wa xadiba allahu wa laanahu wa aadda lahu azima kon loolu ci xel rek maanaam ci xel soo ko jëfandikoo rey nit yow safara nga jëm ndax foo leen di tuubee doo ko xam foo leen di baaloo ak doo ko xam maam xadif si bu sëriñ xaaji Maalik dafa dem ba benn moment am ay muqaddamu tarixa bi yuy tox sigaret mu taalif ci téere moom maam xadif tuddee ko radool ixwaani an surki duxaan téere bu mag la maam Habib Sy ko taalee maam Habib Sy eh, Pape Seydou Wele ci téereem bind na ci ni wax ñu ci noppam ni maam Habib ñu bari ñu ngi koy wax mais xamuñu turam maam Habib Cheikh Ahmed Tidiane la ko Seydi Hadji Malick tudd Cheikh Ahmed Tidiane la tudd mais maire yi ñoo daan amul abbas lañ ko daan wooyee maire di yàq soo naan amul labbu amul labbu jooju ñu taam wax nag sëñ Hadji Malick ni bu ñu nar a yàq sama tur soppe bi nag ma tuddee ko Al Habib yam kooku moom entre parenthèse bu gàtt mu ne nag la maa ma maam Habib nii la maa raaytu maa amat bihil balwaa mi surbu duxaani bi nga xamee ni tux yaatu na wa adami mubaalaati abnaai zamanina bi imtisaalil awaamir bi fiali waccinaa bi nawaahi bi tarkihi mu ne la maa raaytu muslimina alladina yantasibuuna ila tariqati ahmadi tijaani yataaatuna surba duxaani almaaruf bi taba moo tax borom eh, saahibu taani sennaan fi naxari ahlil fitani wa duxaan ni wakam muqaddamin bi zamani dégg nga wala abi summi wa bi duxaani wa kullu man kaane ala dal xaali fa innahu dallun wa zu idlaali yaa waylahu in lam yatub min adduxaani yuksa gadan sarabilan min xuturaani moo tax Seydi xaaj Malick bi muy taalif téere ifhaam bunt bi jaani ci bunt juróom-ñaareel ba mu indi ci sigaret ne dama ciy barkeelu rek mais ñi jotoon bind bind nañ ci ba wax ba pare ba jàll kon naa ci junj waaye wax nag mbon yi ci nekk te daañu andi parce que tariqa du araamal mais yàlla mooy xaraamal léegi nag pourquoi ñu ni tarixa bi mooy solution bi parce que tarixa amul droit araamal lu yàlla araamalul boo demee ci misbaaxu saalik ku araamal lu yàlla daganal safara nga jëm ku daganal lu yàlla araamal safara nga jëm mu des nag ñu layal ko kon avant ñu wax ci tarixa ci sharia mais avant ñu layal ci sharia nañ ko layal ci xel ba noppi soo ko dem ci wàllu sharia moo tax sëy dafa wax ne wa atyabu maa yakunu lil xaraam maa yakunu xalaaluhu aqlan wa axbasu maa yakunu xaraam neena na li ëpp ci li nga xam ne sharia daf koy xaraamal xel moo ko njëkk a bañ ba pare sharia soog ko tere li nga xam ne sharia daf ko daganal eh, xel moo ko njëkk a nangu ba pare sharia soo ñëw daganal su ko defee àtte xel mooy lan loo xam ne amul ci a amul ci hadis fukki dërëm boo ko séddalee ñaari nit ku nekk juróomi dërëm ngay am kooku boo nee nit ki da nga wax alxuraan la ko yàlla ko yonent bi wax du ko ci gis soxlul muy dem ci alxuraan mu des attay aada ku boppam metti mu naan pare paracetamol mu sedd boo ko nee fan la ko yàlla bind ci alxuraan amu ko kon yooyu avant ñuy egsi ndax alxuraan indi na ko wala indiwu ko wax naa leen ko démb nee naa lekk ginaar amu ci alxuraan lekk ginaar amu ci hadis amu ci alxuraan ceebu jën bu am bëgg amu ci waaye nag usul dafa wax ne waqad waqad euh, nuhu am diddi maa umira wa umira an diddi nëf yin fanta bi lépp loo xam ne sharia diglewu ko daganaa def lépp loo xam ne tere euh, digle na ko contre tere na ko contraire ba dagan na lépp loo xam ne daganal na ko contraire ba araam na su ko defee nag ay aaya alxuraan lañu leen di indil pour xam yii nga xam ne sharia daf ko daganal lañ ko teg su ko defee mu des avant ñuy dugg nag ñu dem ci wàllu médecine nga xam ne ci wàllu xel la ñuy àtte ba noppi soogu dugg xool cigarette bi nga xam ne nit nga koy dox nicotine bi ciy nekk mooy lan luy nicotine ñaata produit chimique ñoo nekk ci biir cigarette quatre quatre quatre mille éléments la ñu composé cigarette boo gis su ko defee nicotine ci science boo demee CH H e quatorze N deux lañ koy symboliser mooy dix atomes euh, yoo xam ni de carbone moo ci nekk quatorze atomes hydrogène moo ci nekk de atomes d'azote moom moo ci nekk moom euh, nicotine bi kese. Jean Nicole ci ñu njëkk indi tux ci France ci la bokk mais en 1809 ci euh, euh, Louis Nicolas moom moo njëkk a trouvé nicotine boobu mais kañ lañ ko génne ba ber ko ñaari savant allemand ñoom ñoo ko def kenn ki mi ngi tudd William Hendrik euh, Peuzet kenn ki mi ngi tudd Karl Ludwig Riemann ñoom ñoom ñoo génnewaat nicotine ci biir cigarette wax ñu itam nag danger yi nekk ci cigarette yan conséquences la am. bu njëkk bi feebul dose bi moom nicotine lan lay def mu ni dafa am benn effet stimulant bu ci nekk mu ni lan lay provoqué dafay wax ni dafay provoqué mu ni augmentation mu ni euh, de la pression artérielle lay njëkk provoqué moom nicotine boobu bu xase ba dugg ci en plus rythme cardiaque bi nekk ci nit nicotine bi daf koy développé daf koy yàq te day rey nit indi yi nga xam ni par exemple moom la nicotine yoxe ci tënk pour gagner suñu 30 minutes yi nee na ki koy jëfandikoo nausée daf koy dugg palpitation day dugg ki nga xam ne da koy jëfandikoo nicotine bi maux de tête mu sifalee day dal waa ji nga xam ne day jëfandikoo nicotine boobu insomnie ki koy jëfandikoo dootul nelaw guddi te trouble mental la koy indil jaaree day daw biir moom cigarette bu nicotine bi demee ba dose boobu nga xam ni mooy surdose bu demee ba ëpp ci yow noonu la lay def lipothymie da koy def moom te mooy malaise euh, euh, vertige lourdine étourdissement extra yooyu yëpp nicotine bu ëppee ci doomu aadama da koy def dafay def hypersalivation nit ki dana dem ba dootul mën a téye ay tiflitam te nicotine bi bu ëppee ba surdose noonu la lay def dana aussi indi li ñu Euh, cancer de poumon léegi ci xel bu ñu demee ci yi ñu wax léegi nga xam ne yépp day rey nit benn bu ci nekk day yàq organisme doomu aadama bu ko xel nangoo ni comme lii day yàq xel waroon na ko mën a dàq alxuraan nag dañuy soo ko jàngal aay yàlla wax ni bu leen dugg ci lépp loo xam ni alkande da cee nekk wala loo xam ne daf leen di yàqal hmm? am na carte jaune yi moom moo tax borom xel nag war ko nangu ku am xel laa wax nag moo tax moo ko àtte xel Euh, boo gisee wax àtte xel naa koy nettali dafa am benn dof xam nga dof ñaaree xel yi xel du am xel am ku dee ci koñ bi ndeke moom dof bi ñoo bokk tur bokk sant maanaam bokk koñ bi ñu dëkk bi ñu tuddee turam waa ji dee rek dof bi yaakaar ne moom la ñu dof bi taxaw nangatul avancé ñu wax sant bi rek dof bi toog bi ñu waxee koñ bi rek la dof bi tëdd na commencé yóbbu. dof bi xalam ko talante bi ñu téye ko muy jooy ñu ne ko lan la noppil mu leen damaa xam ne suñu waa kër dañ maa bañ rek maa ngi gaañu depuis démb ci heure bi ñu dema ko nëbb ba léegi ci jàkka laa dégg tàggal waaw yaakaar na ni ki ñu tàgge moom eh, nag maanaam douze éléments yi nga xam ne Taba indi ko te mooy ay poisson bu ñu ko du ñu pare mais dafa mel ni projecteur bi prépare nañ pour loolu ci ciy dem Sëriñ Haaj Maalik bis day firi alquran ba mu yàgg ci ndar mu leen suba dinaa gàtt magi ndar yépp toog Sëriñ Haaj Maalik ni ñu suba dinaa gàtt ci firi sootu safar bi ñëpp toogee ma ngi toog muy firi ba mu yàgg mu ni adalika xayru nuzula am shajaratu zaqum inna jaalnaaha fitnatan li zalimin innaha shajaratu taxjur fi asli jahim talawha ka annahu ruusu shayatin bi mu yegsee ci aaya jëre ci ruuxul bayaan Sëriñ Haaj Maalik taxaw zaquum xob bi mi ngi am côté him moom ak póon ñoo nuroo benn xob mu ne xet bi boo ko sànnee ci safara day xasoo xet bu naqari la am sëñ Aliou maa dugg ci détails yi di ci dugg xajul ci détail bi ñu toog mujj gi mag ndar ni ko Maodo billahi yaa baax te gore te wax sigaret araam na rek te koy waxee képp ko yoroon gën tey ko dóor ci xeer mu toj te xam ne sëñ Aliou maa ngi yay nañ néew fa naa leen sigaret araam na ak yooyu aay yi leen indi rek wax leen sa jot zaqum mooy lan ak saxaar sa ca nekk ñoom ñëpp ñu nangu ni que sikar araam ñun ñu toj seen i gën ba la ñuy ñëw ci wàllu ñu ngi sharia spirituel pourquoi jawharatul kamal boo gisee tarixa bi di ko bañ xam nga jawharatul kamal ñu bëri xamuñu baatu kamaal bi lan la ci wut xool juróom-ñaari bunt la am sept bunt sept bunt yooyu mooy waral boo tollee ci juróom-ñaari kër jawhara ñu ne la Seydina Muhammad a saaba yi dañuy teew am na jawharatul zikri am na jawharatul shawqi am na jawharatul mahabbati am na jawharatul sirri am na jawharatul ruux am na jawharatul maarifa am na jawharatul fakri juróom-ñaari jawhar yi ñooy poor yi nga xam ni moom la xolu doomu aadama buy tudd yàlla di di yëngatoo di tëb di dal boo tux cigarette turu yooyu da koy bouché kenn mënut a tax nga jaruñu moo tax si ci amati boo demee ci kasful xuyum fii baadi asraari xutbil maktum li salaahu diin mi ngi ci Égypte Ousmane Ndiaye mi xam na ko gisante naa dundandoo moom mu ijaazaal ko a génn bi mu génn àdduna ñu koy so dafa feebar sukuraat ñu koy wax loo baatu ashhadu an laa ilaaha illallaah mënu ko wax bi mu sonnee ba sonn ndekkee ñu yëg ni danaa jëfandikoo cigarette keroog la Cheikh mer ni leen bis nag tey kii moom bu ko kenn jëfandikoo ko muy cigarette boo demee ci Ibris bi Abdou Aziz ba am na ci taalibe boo xam ne ba ñu ko lëmasee ak tàngaayam la ko sëriñam xool la mu daan tux nekk ndox di xelli ba tooyal mbalaan ni ñu ko sàngal mu ne kii moom ndegam lii mooy génnaat ci moom kenn a dox bi yàlla ba mu moo tax Abdullah ibnu Tahir yonent bi sa daraan gis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu laaj ko waaw nan nga gis si loolu saxaa soof suñuy waxtu xaan mu ne ko hiya xaraam mu ne hiya xaraam mu ne hiya xaraam ndax Sayyidina Muhammad mi ngi dund ak ñun ba léegi tant bi Sayyidina Muhammad mi ngi ci ndax shaahidan aleykum la yàlla wax moo ñuy seede ëllëg te bu nekkoon ci jataay bi tey ëllëg du mën a seede suñu jataay bi ñu defoon fii ci ngor fa kayfa idaa ji'naa bi kulli ummatin shahidin wa ji'naa bika alaa haa'ulaa'i shahiidaa yow yaay seede ñuy ëllëg mu jooy ko mu seydina Muhammad moo tax na mu ne na laa nasa yuharrimuha lana fa wallahi qad jaau bi aadami firyati taa yéba nee na nee nañ amul yax mu ne nar yi gën a rëy ñoom nar nañ ko mu ne mu ne nag fa kayfa wa ahlul ilmi qaalu bi manaiha kama dakaruhu fi fununil adillati mu ne ñëpp nda indi nañ ni loolu xaraam na léegi nag mu def boo delloo ci usul xam nga usul dafa am loo xam ne boo ne nekku ci alquran ci Ousmane Ndiaye xam nga usul dóor sa yaay amul fu jàpp sa papa dóor ba mu tëdd benn place wala sa yaay dóor ba mu tëdd amul fu alxuraan tere waaw kenn du ko ku ma ko indi ci alxuraan ma kaal dóor sa yaay amul ci alxuraan waaw léegi nag pour pourquoi lu amul ci alxuraan rek xaraamul usul moo lay lijjati moo naan la yàlla nee na la wala taqul lahuma uffin bul wax sa yaay ak say wajur ëf usul ni ëf day metti xol dóor day metti yaram di metti xol waaw ku lay tere luy metti xorom boo ci boolee luy metti yaram du ko gën a tere loolu lañu tuddee ci matière usul al mantuuqu wal mafhumu alquran bi lay wax loo xam da koy wax ci yax bi ak loo xam yaa koy dégg ci biir dañu nekk ci aan ca daara ji benn waa jigéen jóge États-Unis ni pourquoi ngeen di dóor xale ci daara ji wan leen ma ban xadis la yonent bi diglee dóor xale ak ban aaya la yàlla diglee dóor xale su ngeen ko génnee rek ñu xam ne dóor xale ngeen dóor ci daara ji ci daga mu indi problème na yàlla def ñu natt comme doon nañ nar na bi ci usul ma ñëw fekk ma ne ko yow ñu yaa xam li nga wax non arabe yi usul dafa ne al musbitu muqaddamun alal manfi kii saxal moom la ñu war a njëkk déglu koy daal yow yaa ñuy wax fan la alxuraan téere dóor xala ñu bàyyi dóor xala gàmm kii téere gàmm moo lay wax man addis la ko yàlla yi mais yow mi gàmm bu ko wax man addis la ko yàlla wax da ngay sonn amu ci mais ki ko tere moo lay indil ni lii lañ ko teree ma ne ko yow yaa ñuy wax fan lañ teree dóor xale bis na ko tey kenn dootu dóor xale mu ne ma yow damaa bëgg ñu nekk ay waay mu ne ko waaw ah, loolu de moom mën naa ne yàlla ni wa anfaqu fi sabilillahi wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla nee na bu leen dugal ci seen loxo bu leen dugg ci lu leen di alak waxuma fii léegi yi nga xam ne moom la médecin yi bind ni moom moo rey ci kees gi dañ koy bind ab dangereux dañuy bind ni ci kees gi nit dafa danger la ci santé doomu aadama moom cigarette Australie instant yi politique bi ñu génnee dañoo dañoo programmé xeetu cigarette yëpp nañ bàyyi tur yi te defal wutal ko benn tur wutal ko genn kees dessin ci bëñ yoo xam ne borom bu yàq bëñ ya yàqu na pour ñëpp xam ne cigarette dafa bon Allemagne aéroport boo dem sëñ am ñu xam ne damay wax dañoo bind ci gaar yeeg métro yeeg yëpp ni tere nañ ko fi waaw loo xam ne nag ñoom ñoom ñi xam du ñuy julli sax tere nañ ku ko jëfandikoo ca seeni place nga xam ne loolu baaxul nit looy def te bu leen di bette nga nëbbu ko rek loola yàlla nag wax ni xoolal am na benn aaya ñaari aaya ci alxuraan pour wax la ni saa yu foog nga dem ci alxuraan yëguloo ni alxuraan kese boo ko jëfandikoo sax boo moytu dem safar ak xadis kese parce que dafa am loo xam ne alxuraan da ko bind mais ñaari aaya daa ñëw aaya jee alxuraan yàlla muy wax ni ku sa jëkkër dee na nga tijji at beneen aaya ñëw ne ku sa jëkkër dee na nga tijji ñaar ñaari weer fukki fan mais soo jàngul ak naasixu wal mansuux ban ngay ban aaya nga ci jël foog nga xam ban aaya moo folli morom bi loolu amu ci alxuraan bu la wax ni aaya bi fu yàlla folle na ko aaya bi usul ngay jàng ñun la aaya ji moo folli aaya ji su ko defee li nga xam ne nag moom lañ ci indi ci ci ci nga xam ni eh, bu ñu ko doon tudd fii du jeex Ousmane ñaata waxtoo ma def xam nga waaw muy am na mbokk yu fi présenté ay euh, statistiques yoo xam ne ci wàllu euh, cigarette la léegi léegi ñu delluwaat ci yaa jox alxuraan yàlla nee na yes alunaka maada uxilla lahum yàlla neen lan lañ dagana ci yéen xul uxilla lakumu tayibaatu wa maa allamtum min al jawaar yi tey yi la leen yàlla daganal ni al yawma uxilla lakumu tayibaat wa taamu la dina utul kitaab kon tey yi teeyee dagan léegi nag mu gën a leer nag alladina yattabiuna yattabiu yattabiuna rasula annabiyal ummi alladina yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injili yamuruhum bil maarufi wa yanhahum anil munkar wa yuxalli lahum tayibat waaye wa yuxarrimu alayhim alxabaais mu daganal leen ji tey waaye araamal leen yi nga xam ne xabisa la xabisa nag boo ko firee ci sharxal téere yi mooy lépp loo xam ni dafay indi lor ci yow lu bon la xet ga neexul ka ngay dendal xetam neexul ci dafa la yàqal ci àdduna bi ci des mooy kii tux cigarette Seydi Hajj Maalik sëñ ki Si daf ko laaj ca Ndar lee te téere bi maam xabis si bind si radox jaxwaan ma nga ca mu ne ko loo xam ci imaamu raatib buy tux cigarette Seydi Hadj Malick ni su ma ko xamee man Maodo avant mu may jiite du ma jiite su ma jiitee ba pare ma soog a xam ne day tux ma baamtuwaat sama julli sëñ Babacar si moo ko laaj Seydi Hadj Malick dox na ci ndar ci Mauritanie benn jigéen di ko àbb almet pour tux mu ne ko waa maa maana naaru lëtti tasal yiniha wala nahnu surab du subara ba duxaane axal xobxi walakin na naa nëx jët tijaani naqta fi wala xayra illa fi ay dawil fatxi ñun tarixa cheikh duñu tox duñu laal cigarette walaysa lanaa min baadi maa qaala cheikhuna illaa ida ma bada ida ma bada lu si wa darbi wa sabxi lu cheikh wax ba pare ñun nii lañ cay def keneen koy wax leen dootu ñu la dégg sëriñ xay maa indiwaat na ci yeneen bayit cheikh saadu abi nga xam ne daañu wax sax macim cheikh saadi bi doomam sëtam alwali doomu cheikh at xaana ñuy fii ci Dakar ni ma sama maam bind na ci ay bayit ci cigarette wane ni baaxul yàlla def ñuy gëstu bay de ba gis ko Cheikh Saadu Abidi nii las naa nu salli billadi yasummu law kaana nafauhul wala yaummu kala wala li man tambaaka yej xamu li anna naa naalam wa huwa yaalamu bi annahu fisqun walla karama wala shahadatan wala imaama Cheikh Saadu ni ñun du ñu jullee koo xam ne yëg nañu day tuux donte law kaana foofu la war a yaa umm donte am na ñu koy wutal ak njëriñ kallaa walaa li man tambaaka yee ji xamul kuy jëfandikoo tabaa ndax neen bi ana naal boobu yaalum xam nañu li mu def baaxul nii di baaxul Muhammad ibnu Baaba Muhammad Baaba ni wa kuruhuhu la dal lawaami ay ittarax wa ayu naq lay kitaabay ni asax wal mubtali bi usbati duxaani in la njëtu fa xatabu niiraani taraahu antanu ibadallahi xalban yadan tawban bila tanaahi mu ne loo xam ne day yàq tuñ di lakk loxo di lakk sa yére nee na kooku kenn mënut a tudd ak daganam su ko defee eh, ñu ñu tuddal leen ay turu téere yoo xam ne ca la nekk parce que liñ ci gëstu ci téere mën na fukk ak ñaar bu ñu ko doon bëgg a wax duñ fi jóg mais ku dem ci isaabu rafiq wa buxyatu sidiq fii xelli mat ni su la mi tawfiq ila mahabbatillahi ala tahqiq Habib Abdullah ibn Husayn Abdou Tahir ala ali moo ko def ci sigar lay araamal azawajir an iqtiraafil kabair mu nekk 77 al ak ay ayib dégg nga wax na ci sigaret boo demee ci tabsirul ixwaan fi bayaani adraari tabxi al mashhur bi duxaan Muhammad ibn Abdullahi at-Tarabishi moom moo ko def boo demee ci al idaafa wa tabyin fi itbaati tahrimi duxaan dégg nga araamal na ko waqulul jawahiril xasaan fi bayaani xormati tabxi al mashhur bi duxaan indi nañ nusratul maliki wal mamluk fi tarajim mashahiril muluk li cheikh mahamad ibne abdullahi al muwaqat al marakishi moo ko taali xamahul shahwati an tanawuli tabaak wal kaftati wal qahwati cheyda àllaw yi moom moo ko taali alaaqdu nafis fi nazmi jawahiri tadris ci sigar lay wax ahmad ibne idris al maghribi fatwa aliyu malik moom sëñ Babacar Abone ba mu demee tënga ñu jiitaloo ko àjjuma mu leen mag ñi ndax dagana ma jiite fi ñuy werante xel ñaar mu ni leen dagana ma jiite fi dem leen indil ma fatawa alis ñu àndal ko ko mu ibbi ni leen xool leen fii diggante fi ma nekk tëngéej ak téyaanga diggante bi matul dox waañu sañ naa fee jiite xam-xam baa bari boo demee ci nasru asraar albashariyati min tawaayal axlaaqil muhammadiyati ci muhammad al janbihi moom moo ko indi fa haadi mbaam roomo ko mu ni gars yi téye leen ma mbaam mi ko su papa mu ni jàpp leen mbaam mi gars yi mu ni sangal leen ma mbaam gaa yi sang mbaam mu ne watal leen ma mbaam mi gaa yi wat ko mu ne mbaam mi tuubal naa ko léegi sax léegi sax wutal naa ko beneen tur tudde naa ko xar pour rek affaire bi dagat su ko defee loolu lay kàddu bi jéggalu ci guddal gi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu